an saxaabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala xawla wala quwata illa billahi alali alazim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Now you can listen to our Fakir Muhammad Saha Tijani, along with the greatest scholars of our time, on Tijani International Radio, every day at www.icfaonline.com, at www.muhammadsaha.com, by dialing your phone at 401 347 07 841. Or by downloading the Tijani Radio application onto your smartphone or computer. For your questions about Islam, you may call 347 596 2036 or email us at icfaonline at gmail.com. Spread the word by sharing this message with your friends. Wassalam. Wassalam. Wassalam. tabarakallahu ñu leen di nuyuwaat te di leen eh, ndokkeelaat te di leen eh, ziyaarewaat te di sàkku ci yéen ñaan tey ñaan suñu borom boole ñu defaral suñu wala ñu defaral suñu baatin su barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni guddi yi ñu tollu guddi mbégére la guddi xéwal la waaye guddi guddi yiw waaw muy guddi Eh, yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa dëgg la nag eh, li mbégéré mi di bari ak yiw yi di matale terewul ay yëfa ngi tàbbi ci xeet wi yu nga xam ne eh, guddi yile occasion la yu ñu war a saisir pour ñaan suñu borom mu woyofal moo xam problème yu aju ci xeet wi yépp la ci ñi koy xeex ci biir ak ci biti walla yu aju ci eh, suñu jëmmi bopp lañ yal na yàlla fay yépp ci barke boroom guddi yu tedd yi mu yonent yàlla Muhammad eh, tey rek ca wàllu Sinaay ca Égypte suñu euh, mbokk yu tedd yooyu la nekk ca jàkk ja di julli juma ay saay-saay yu kenn xamul fu ñu jógee ñëw rey fa lu ëpp ñaar téeméeri nit eh, ngeen gisi tamit li xew lii bi fan yile yépp nit yi di ko wax waaye du ñu nangoo tudd mukk responsabilité bu Occident donte nag jiiñ ko Occident rek du ko sottal ku nekk ci ñun moo xam Afrique walla dëkk yi ci des war a seet euh, li ci responsabilité waaye war a seetit li koy saafara njëkk góor gi Abdoulaye bin Baye nee nag kuy fay lakk du laajte lu ko waral dafa fay ba pare ñu soog a def enquête kon nag yal na yàlla yërëm suñu mbokk yële ca Égypte góom yi nga xam ni ñu ngi ci biir lislaam yàlla wéral leen noon yi nga xam ni ñi ngi ci yàlla seppi leen ñii dal ci suñu kaw yàlla alak leen boole ñu defaral suñu waaxir boole ñu defaral suñu baatin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa mu mel na eh, ñaari fan yi jàngoon nañu ak yéen bunt bu njëkk ak bunt bu mujj maanaa bunt ba ca topp bon tey nag ñuy dugg ci li nga xam ne moo tax a jóg aji tagg ji mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ñetteelu faslu bi nee na zalamtu sunnata man axya zalaama ila an ishtakat qadamaahu durra min warami zalamtu man Muhammad Busiri te sama kalaas gee tax muy wax tooñ naa man sunnaay ka nga xam ne axyaa dundal na zalaama lëndëm ilaa nishtakat jëm ba tawat xadamaawu ay ndëgoom abdurra lor min waramin ngir néewi yonentu sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne fa daa julli guddi di naafilal boromam di jaamu yàlla di ko tudd ba taxawaayu jaamu ga néewi ay tànkam man may tuddoo ne soppeem laa te weesuwuma farata ci julli weesuwuma farata ci koor moom mi daan def loolu ba ñu ne ko xanaa yàlla baalut la sa yu njëkk ak sa yu mujj mu naan looloo tax ma war a def lii ndax ku ñu defal teraanga ju toll ni soo defoon dara baal nañ la ko li nga war a defi ëllëg donte doo ko def it baal nañ la ko ana ku mën a fay teraanga jooj lu dul foo tollu rek di sant ka la ko defal te yàlla nag jaamu lañ koy sante afala akuna abdan shakuran mu ne man nag maa ngi jàmbat mbëggeel ba ñépp xam ko ci man maa ngi woote mbëggeel ba ñépp xam ko ci man te dëgg-dëgg bëgg naa sax waaye sama mbëggeel gi ba léegi soppeegut sama mbir ba toppuloo ma ki nga xam ne moom laa wax ne moom laa bëgg te ku nekk ka nga bëgg fañ la koy xoolee imaam Ibn Hazm ne koo bëgg rek am nga jaanib bu ngeen nuroo nuroo mën naa am da ngeen koo xamagul rek kon nag buñ may xoolee yonent bi ma bëgg te ni ma war a mel meluma ko tooñ naa ko wa shadda min saxabin axshaahu wa tawa taxta alxijaarati kashxan mutrafa adami wa shadda tam takk min saxabin ngir taruk xiif ahshaahu ay baljatam yenentu mi daan takk ay faaram ngir xiif gu métt métti bam leen di takk hit yamu ca watawa dafa leem taxtal xijaarati ca suufu xeer ya kashxan legg boo xam ne mutrafal adami aji nooy ci der la xiif daan ko sonnal ba pour mu hoyafal xiif gi dafay jël doj yooyu nga xam ne dañoo sedd mu takkee ko boori biiram yépp ngir mu seral tàngaayu xiif bi ci biir bi mu bañ nag nga foog ne ak ñàkk moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jànkuwante xiif gu metti googu mu ne waraawadathu malgré que sàkk na ko aljibaalu doj yu doj ya ashumu kawe min dahabin nekk wurus an nafsihi wëllis boppam duut ne moo ko sàkku waaye doj yi ñoo doon ñëw naan ko boo bëggoon ñu nekk wurus loo bëgg ci ñun def ko faaraatam dëddu leen ay yama chamami euh, gum ci dëggu dëddu wala fa araaha mu wan leen ayama chamami euh, gum ci kawe doj lañ kawe kawe wan na leen ne moo leen gën a kawe soxlawut leen kon xiif gim doon def bay takk waaw biiram duut ne fa xamutoon wante dafa dëdduwoon bu fekkoon ne ñàkk la sax def gam ko def ak muñ gam muñ doy na tedd nga waaye muñ gim ko muñ duut ne moo ko ñàkk waaye daf ko soxlawut yàlla la tànn ci am àdduna li ci biiram wa raawadathu ljibaalu shummu min dahabin an nafsihi fa araaha ayyama shamami ñu ne jibril alayhi salaam nee na ko sama borom nee na ndax bëgg nga mu soppi doj yi yépp ñuy ay wurus ñeel la foo mënta ne ñu topp la mu sëgg ab daldi nekk ko yow jibril inna dunya daaru man laa daara lahu wa maalu man laa maala lahu qad yajmau aaman laa aqla lahu jibril àdduna këru ko xamut kër ku amut alal la ku amut xel dana ko xam jibril ne ko thabataka allahu bil qawli thabit ya muhammad dëgg-dëgg li nga ne yàlla la ci yàlla saxal yonentu sallallahu alayhi wa sallam bés nekk nañu mook saxaaba yi di gas mooy xareeb xandaq ba ñuy gas am lu leen të ñu ñëw wax kooko mu ne man maay dugg ca biir pax ma bi mu yëgatee tojukaay ga ñu seen biir ba ma ngi ko takk xeer ba mu fees dell ndax ñetti fan lekkut kenn ci saxaaba yi muy jaabir ibn abdullahi ne sama yaram nangootu loolu ma ne ko yonentu dama lay ñaan ndigal yegg kër ga nee na bi ma demee ma ne sama soxna li ma gis daal mënuma koo muñ ndax am na loo fi am fekk mu ngi amee dugub ak doomi bëy wu jigéen ma ne ko defer ko bi mu ko deferee ba muy bëgg a ñor ma ñëw dee yonent bi ne ko seetal kenn wala ñaar ci say saxaaba ngeen ñëw lekk mu laaj ma lan la ma wax ko ko mu ne ma lool la ma ne waaw mu ne lool kay baax na daldi woo saxaaba yi jog leen ñu dem kër jaabir jaabir tiita tiit ndax muhajirin ak lansaar yépp ko topp te moom lim toggoon togg kenn la ak ñaar bi mu ñëwee ne soxna si yéen tudde wax naa ko ko waaye woona saxaaba yi yëpp soxna si ni ko ndax wax nga ko lan la mu ne waaw mu ne ko kon bu ragal dara na ñëw udxulu wala tadaaxatu naam <clears throat> yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo gaaña moo gaaña ba ñëpp uh, xiif gañ xiifoon dem yonentu yàlla bind moo ci ëpp mucjisaat waaye fuñ ko soxlaa rek la koy wane ndem duut ne jamono ju ne lañ ko soxla ndax moom jëmmam rek mucjisa la wa akkadat zuhdahu fiiha daruratuhu inna darurata laa taadu ala alcisami wa akkadat feddali na daruratu lorum ci àdduna zuudahoo dëddum fiiha ci àdduna loru gim loru ci àdduna mooy wane ne dëddu na ko koo xam ne su la neexoon àdduna yëpp ñeel nga tànn nekk jaam rek tey nga xiif suba nga lekk tey nga am suba nga ñàkk tey nga mën suba nga mën a di loru googu te amoon choix bañ loru mooy wane ne dëgg-dëgg ku dëddu àdduna la inna darurata ndekete lor laa taadu mën a dal alal isami ci ismatu ismatu kàttan la gu yàllay jox jaam ba jaam ba du mën a def lu neexut yàlla bu dee sax luñ sib la yeggu ci xaraam lorug àdduna du tax ismatu yonent bi sallallahu alayhi wa ba muy torox lu luwaay yi àdduna yi mooy bu la loree nga dem wuti lu la dimbale xëpp na loolu sallallahu alayhi wa la muy jël ci àdduna rek mooy li yaramam soxla te yaramam ak néew lum soxla ndax fu mu toll borom ma ngi borom ma ngi koy leexal di ko nàndal te leer ya nga xam ni kenn xamut fañ jógee ak fañ xem fañ tàmbale ak fañ xem la koy leexal di ko ko nàndal wa kayfa tad'u kaawteef naka lay hooye xëy la duniyaa jëm ci àdduna daruratu man lor koo xam ne lawlaaw su dun woon ak moom lam tuxraj defu génne adduniyaa àdduna jëm ci am minal adami jógee ci ñàkk koo xam ne su dul woon moom àdduna du xam kooku nu ko àdduna mën a obligé ci mu koy soxla nu ko àdduna mën a loree ba mu koy wut maanaam mënta nekk yonentu sallallahu alayhi wa sallam bu dul moom yàlla du bind dara alxaakim ak albayhaqi yu nettali nañ ni yonentu yàlla wax na maam aadama ba mu koy ñaan mu jéggal ko te ñaan ko mu jéggal ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla ne ko jéggal naa la ci barke ki ma ñaan ndax booba aadama fa gis ci peeri arash yàlla bind ca laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi mu xam ne yàlla du tëkkale turam lu dul turu ka mu gën a sopp ci lim bind te mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa wa sallama ba mu gisee loo mu ñaan ci barkeem yàlla baal ko ne ko saaltani bi xaqihi an axfira laka wa qad xafartu laka wa lawlaahu ma xalaqtuka ñaan nga ma ci barke Muhammad ngir ma baal la baal la yowoo ne su moom duma la bind ndegam li yàlla bind ci àdduna yépp nit la ko bindal huwa alladi xalaqa lakum maa fi l ardi jamian wa saxara lakum alchamsa walqamara daa'ibayni wa saxara lakum alleyla wannahaara gannaaw li yàlla bind yëpp doomu aadama la ko yàlla bindal te doomu aadama ki ci njëkk mooy aadama nit la ko yàlla bindal te nit aadamaa ci njëkk te aadama mi ci njëkk ci yonent bi sallallahu alayhi la jógee bul woon ak yonent du am kon kay àdduna yëpp bul woon ak yonent sallallahu du am de fa kayfa tad'u wa kayfa tad'u ila dunya daruratu man lawlaaw lam tuxraji dunya min alaadami naka la lor di obligé di forcé di loruloo wala di lore yonentu ba muy soxla àdduna te àdduna barkeema ah. wala lëf la ci barkeem sax ni mu ko waxee ca kanam fa inna min juudika dunya darrata wa min ulumika ilma allawxi walqalami ana kuy kooku mu ne muhammadun sallallahu alayhi wa sallam sayidu alkawnayni walthaqalayni walfariqayni min urbin wa min ajami muhammad la tudd sallallahu alayhi wa sallam ay huwa muhammadun xabaru mubtada muñ nattale la mooy ki nga xam ne moom moomam tagg gi waaye tagg guñ defati rek ci xàqu mbindeef mooma sallallahu alayhi wa sallam gilee sax jëleme nañ ko ci kanam keneen muhammadun noonu la tudd ana kuy kooku mu ne sayidul ni mooy sanguk ñaari nekk yi muy nekkuk àdduna ak nekkuk àllaaxira wathaqalayni mooy sangu jinne ak nit wal fariqayni mooy sangu ñaari kuréel yi min urbin moo xam arab la wa min ajami ak kudur arab arab yi ak lakkat yi yépp yonentu sallallahu alayhi wa mooy seen sang nit ñeeg jinne yi yonent bi sallallahu alayhi wa mooy seen sang lu yàlla bind ci àdduna ak ci àllaaxira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sangam kookoy kan nabiyuna laamiru naahi fala ahadun abarra fi qawli laa minhu wala naami yonentu boo nga xam ne mooy sang way njëkk ak way mujj te loolu du tuugaréem ndax nee na maay sang yi wala faxra ndax bu nekkee suñu sang rek ñun la neet te nekk ak ñun du puugareem bu nekk yàlla jam lay dox te nekk jaamay puugareem subhaana alladi asra bi abdihi tabaraka alladi nazala alfurqaana ala abdihi alhamdulillahi alladi anzala alkitaaba ala abdihi fa awxa ila abdihi ma awxaa wa innahu lamma qaama abdullahi maqaamaam yi gën a kawe yépp sama borom jaam la ko fa wooyee ba ko rañaanee ba muy deyaaleeg moom bam ko joxee risaalatu ba mu wàccee ci moom alquran kooku nabiyu naa mooy suñu yonantu al amiru kii aji tere mbaax kii aji digle mbaax naahi ki aji tere mbon fala ahada déet kenn wala fala ahadun déet kenn abarra da gën dëggu fii qawli laa ci buñ ne bu ne naami du caageen ci bu ne waaw kenn gënta mën a wax dëgg su dee wala waaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy kuy wax déedéet moo la gën a dëggug déedéet kuy wax waaw moo la gën a dëggug waaw huwa moom sallallahu alayhi wa sallam mooy soppe yàlla bi alladi bi nga xam ne turjaa des na yaakaar shafaatuhu ak tinum li kulli hawlin ci bépp waaw tiitaange muqtaxami bërëb buñ bët minal ahwaali ci tiitaange yaa moom yu àdduna la walla yowmal qiyaamati yonentu sallallahu alayhi wa mooy soppeeb yàlla bi xabib moo gën a xejj kalim rëy moom kalim xabib moo gën a xejj ruux ak rëy moom ruux xabib moo gën a xejj ak rëy moom xalil yooyu yépp di maqaamaay maam ibrahima di maqaamaam maam muusa di maqaamaam maam isa maqaama réew ni seeni maqaama waaye fay fekk dendalewoo ko gu yonantu moom sallallahu alayhi wa lu mu bëgg suba ba rek yàlla ngi ba muy jot ci yàlla fa dox bay bëgg dee wala maa jaa a Muusa li miqaatina seydina ibrahima inni zaahibun ila rabbi sayahdiin waaye yonentu moom subhaanalladi asra coono ga yëpp yàlla ko ko ko wàcceel huwa moom alxabibu mooy soppe bi nga xam ne alxabibu alladi soppe bi nga xam ne turja def na yaakaar shafaatoo ak rëmmam yonentu bi salallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne bëgg nga mu sotti ci wàllu yàlla jaaree ko ci moom rek léegi mu sotti imaamu nawawiyu rahmatullahi alayhi moom la ñuy tuddee yaxya ibnu sharaf waaw di ngonk ci waaw ponkali e, ngiru imaam shafii di koy dàkkantale abu zakariya waaye xamu doom di ko dàkkantale muhiddin mu ngi dund dund gu gàtt diggante 631 ak 676 waaw ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi moom ci fiqhu kenn melul woon ni moom ci xadiis doy na siiw rek ci taalifam yi ne taalifam yi ñoo gën a tasaaroo ci àdduna bi gannaaw mel ni waaw taalifam gu siiw goow riyaadu al arbauna nawawiya al asmaai waaw charxu mahadab ci fiqhul imaamu shafii ak minhaaju taalibin ak taalifam yu bëri kenn xamul taalifam yi waaw ni mu bëree woon te ñeent fukki at rek la dund radiallahu tabaraka wa taala anhu nee na yonent bi xam na juróomi shafaatu bu njëkk ba mooy tuddee a shafaatul uzma ngir tàqale diggante waaw ñooñ mawqif ba waaw mawqif ba danañ taxaw lu yàgg ba nga xam ne taxawaay ba dana leen sonnal ba danañ ngéeju yàlla yóbbu leen safara sax ñu noppalu waaye ñoom ñëpp ñu tiit kuñ dem rek nga ne nafsi nafsi bañ yegg si ci moom mu ne ana laa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi keroog mooy tinu jaam ñi ba yàlla waaw taqale diggante mawqif ba maanaam tàmbali xàtte ba ñaareelu rammu gi mooy mbooloo mi nga xam ne danañ dugg aljanna ci lu dul xisaab yàlla nañ ci yàlla boole ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteelu waaw shafaatu gi mooy ji mbooloo mi nga xam ne xatte nañ leen bañ xeewa safara waaye mu tinu leen ba duñ ca dugg ñeenteel bi mbooloo mi nga xam ne dugg nañu safara waaye moo leen cay génnee ci ramam ak mbooloo mi nga xam ne dugg nañu aljanna waaye mu ramm leen ba yàlla yóbbu leen ci maxama yi gën a kawe maqaama yañ ne woon yàlla nañu yàlla boole ci ñiy dëkkaaleeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca njëlbeenu waaw dugg ga waaw ba yow ma waaw ba abadan rek de ñu ne moo jagoo ñaari bu njëkk ba ak ba ca topp am na ñu wax loolu waaw am na ñu ca yokk ne am na yeneen rammu waaye boo ko xoolee fay delluwaat ci rammu yu njëkk yi ci wàll mooy génnee gi muy génnee képp koo xam ne lëf ci ngëm rek mi ngi ci xolam yonentu dana dem génnee leen safara waaw yóbbu leen aljanna sallallahu alayhi wa sallam wala woyofal mbugalu ñenn ci waa safara am na ñuy tudd bàyyam Abu Taalib donte ñun ñemewuñ ko ngir xadis ja ca wàcci daa ila fal mustamsikuuna bihi mustamsikuuna bi xablin gayri munfasimi daa woona jaam ñépp ilallaahi jëm ci yàlla mooy jébbalul ko fal mustamsikoona way jàpp bi ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mustamsikoona way jàpp lañu bi xablin ci buum goo xam ne gayri munfasimi duut muy aji dagg faman yakfur bittaaguuti wa yumin billahi faqad istamsaka bilurwati lwusqa la nfisaama laha faaqa annabiyina fi xalqin wa fi xuluqin wa lam yudaanu fi ilmin wala karami faaqa kawe na moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam annabiyina mbooleem yonent yi fii xalqin bu dee bind la moo leen dàq fuuf donte ñu rafet lañ yàlla du yónni mukk ku ñaaw du yónni ku ragal du yónni ko amuli bokk ku ñaaw nit ñi duñ la bëgg ku ragal dañ lay dàq nga daw ku amulu bokk dañ lay noggatu waaye yonent yi li ñuy rafet rafet waaw jegewuñ yonent bi sax nag faaqa kawe na nabi na mboolem yonent yi fii xalqin ci bind gu rafet wa fi xuluqin ci jikko ju rafet waaw jikko moom foo ko war rek euh, moom jikko sax dabut ko ndax biñ laajee ali ibn abi talib melalal ñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nan la jikko meloon mu ne ko ko laaj ndax mën nga maa melalal àdduna ni mel ba mu sosoog ba ba muy jeex mu ne ko àdduna ba mu sosoog léegi kenn xamul kañ la di kañ lay jeexee kenn xamu ko mu ne ko pourtant yàlla wax na ci alquran ne àdduna lu tuuti la te mënoo ko melal naka lay melalee ki nga xam ne yàlla wax na ne jikkoom waaw lu màgg la wa waxuma lu màgg la waaye war na sax màgg faaqa nabiina fi xalqin wa fi xuluqin jikkoom moo doon alquran walam yu daanoo xaajuñ koo jege sax fii ilmin ci xam-xam bu bari ba wala karamin du jaageen ci teraangaay loxo ba ak jikko jaak lépp rek sallallahu alayhi wa ana nuñ mel moom ci bind ana nuñ mel moom ci jikko ana nuñ mel moom ci xam-xam ana nuñ mel moom ci tedd nga mu ni wa kulluhum li am mooy yonent yépp multamisun képp kenn ci ñoom multamisun aji sàkku la ab tànq minal bahri ci géej aw rashfan wala waaw ak macci mina diyami ci taw i waame min rasulillahi tukkee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa wa kulluhum képp ci ñoom multamisun aji sàkku min rasulillahi tukkee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xarfan ak tànq minal ci géeju xam aw rashfan wala macci mina diyami ci waa waameeg tabe sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam baajuur mu ne lim namm ci géej ak lim namm ci waame mooy xam-xamam waaw ak lewetam mu ne waaw mellale na eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw géej mu mellalee géej walla mu ah, taabiree ko tànk waaw waame mu taabiree ko waaw macci ndax tànk moo gën a munaasaba ak géej ngir bërim yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu yi yëpp waxuma ne moo leen hëppale waxuma leen ne moo leen dàq waxuma leen moo leen gën waaye seen mbaax ak seen rafetaay ak seen taar ak lépp ñu ngi ko jëlee ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam taaru biir wala taaru biti wa waaqifoona la day min nuqtati ilmi aw min shaklati lxikami wa waaqifoona ñoom yonent way taxaw lañ la day fa yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa fa tàmbale kaayam waaw inda xadimu fekk booba ña nga ca seenu dayoo ñoom buñ demee ba seen mbaax fa mu plafonné fa la mbaaxu yonent bi tàmbalee seen taar fa mu yem fa la taaru yonent bi tàmbalee seen ngëneel fa mu yem fala ngëneel yonent bi tàmbalee ñoom daal buñ demee ba ne fii lañ mën a yem yonent bi moom fala tàmbalee jëm ca kaw nag kon naka lañ koy mën a jotee wa waaqifoona way taxaw lañ la day fa tàmbalee kaayam wa waq inda xaddihim min nuqtatil ilmi ci laale moom tombub xam la aw min shaklatil xikami wala ci maaskaay xikmatu xikmatu wala xikam jamu xikma maanaam yonent yi liñ leen jox ci xam-xam ak xikma yépp lëf la rek ci xam-xam ak xikmatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lëf la tuuti na ba nga xam ne booy xool seen xam-xam ci xam-xamu yonent bi mu ngi mel ni rek benn tomb ci mbooleem xam-xam yi ci àdduna ak àllaaxira la wala benn masque ci mbooleem euh, wisdom yi ci àdduna ak àllaaxira فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم فهو ينت على محمد صلى الله عليه وسلم موي الذي موي كيغا خامني تم متنا معناه معنام وصورته ak melom manam matna ci bir matna ci biti فهو الذي mooy jëmm ji nga xam ne tamma mat na maanaawu biiram fi lkamalaati wa suuratuhu ak zaahiram fi sifaati thumma stafaahu topp tànn ko nag baari un nasami aji bind nit aji bind mindeefi wala aji bind nit ñi waaw nasam jamu nasamatin kana ko tànn yàlla mi bind ñépp moo ko tànn xabiban mu soppeem nag sallallahu alayhi wa ala wa sahbihi wa sallama yàlla na mbiram matal na biiram matal biteem loolu rek doyoon na waaye teg ci nag mu def ko soppeem munazzahun an sharikin fi maxaasinihi fa jawharul xusni fi xayru munqasimi jàng nañ xasida ji ba yegsi ci baytu ci kanam cheikh seydi ahmed tijaani radiallahu anhu muy xool ñi nekk moom kenn mënatul a raf ngir xaala bi nga xam ne cheikh na tijaani mi nga xam ne nim xamee yonent bi kenn dabu ko ca mu ne leen huwal xaybu fi shahaadati cheikh tijan si di ko tuddee di ko firee c'est l'antimatière par excellence dépêchez auprès de dépêchez auprès de la matière auprès de la matière sallallahu alayhi wa sallam munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul xusni fii xayru munqasimi yonent bi munazzahun ku ñu soril la te sellal ko an sharikin walis bokkaale fi mahasini ci taaram fa jawharul xusni jawharaay taar Euh, fii ci yonent bi sallallahu alayhi wa taar bi ci yonent bi jawharaam xayru munqasimi duut muy lu nangoo séddaliku yonent bi sallallahu alayhi wa kenn melut ni moom taaram waxuma la kenn melut ni moom sax waaye kenn sédduwut ca alayhi salaatu wassalaam ni nga xamee ne képp ko am taar rek yaa ngi nit bokk ba ci seydinaa yusufa mi nga xam ne yonentu wax na ne wan nañ ko ko bi muy rañaan fekk mi ngi yore genn wàllu taar seydina yusufa taaram boobu kat la muy bëri bëri wàllu taar la ci taaru nit ñi waaye taar yëpp buñ ko boolee mi ngi daje ci yonent bi sallallahu alayhi wa ana lu tax nag nit ñi daan fitnawu ci yusufa jigéen ñi daan fitnawu ci yusufa te fitnoowuñ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taaru yonent bi sallallahu alayhi dañ ko muure jalaal maanaam jalaali moo tax nit ki doom fitu waaw euh, euh, jéem ko waxi mbóosóor ndax màggaay bala wa man raaw mufajaatan yahaabu bi amma muxaalituhu fa zaidu raxami loolu la suñu maam ba Cheikh Xaj Malik waxoon te mi ko jëlee ci xadis ja wax ne képp koo xam ne gis nga yonent bi rekk li ngay njëkk def mooy sa fit wi rës lay def ndax màggaay ba waaye boo janoog moom rek sallallahu alayhi wa waaw xam ne moo gën ci li yàlla bind moo ci gën a baax moom ngay gën a waaw bëgg a nekkal rek sallallahu alayhi wa sallama fa jawharul xusni fii gayru munqasimi daa damat daathu nasaara fi nabiyihimu waxkum bima chita madxan fiihi waxtakimi da bahal ma daathu lahoo teewoon na ko nasaara nasaraani te ñu ngi koy woote ba léegi kat fi nabi moo ci seen yonantu kii Seydina Isa naan yàlla la yow boom fexeel ba rek bul Muhammad yàlla wa qaalat nasaara almasihu ibnullah yonantu sallallahu alayhi wa sallam Seydina Omar wax na ne yonantu nee na Isa bna Maryama fa ana wa abduhu fa qulu abdullahi wa rasu wa rasuluhu bu leen ma bu leen exagéré ci man ba wax li nasaraani waxoon ci isa man jaamu bi yàlla la inna waaw ci benn riwaaya mu ne fa innama ana abdullahi fii mu ne abduhu jaamu bi yàlla la wax leen jaamu bi yàllam te jaamu bi yàlla waaw tey yonantam buusiri nee na boo fi tegee ne yonent bi du yàlla rekk lu la neex waxal nag ci yonent bi te fekk dëgg la koo sax léppam waxkum xàtteel bi ma shiita lu la neex ma daan ci tagg fii ci moom waxta ki mi te xereñee ko nag ba bul yegg ci ulohiyatu lu dul ulohiyatu rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko wan suub xaskaneel ilaa zaati jëm ci jëmmam ju tedd jamaashita lu la neex min sharafin ci tedd nga wansub te nga xaskane ila ci darajaam mashita lu la neex min iwami ci waaw màgg jamu awamatin lépp loo xam ne sharaf la rek xaskane ko jëmmam ji tudd na sharaf tudd zaat ndax sharaf mën nañ ko askanale zaat ndax lu ñuy gis la ak bët ni ki ngay gisee barab bu kawe nga askane ko kawe googa waaye darajaam nag mu askane ko idam muy màggaay ndax mu am munaasaba moom xamut fu mu xem kenn mënu koo peek fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yuriba anhu naatiqun bi fami fa inna fadla rasulillah <coughs> naka ngëneelu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam laysa law déet di ko ñeel xaddun dayo xamut fu mu yem fa yuriba bay mën a tudd waaw di leeral fa yuribu bay mën a leeral anu ci moom naatiqun aji tudd bi fami ak gémmiñam képp koo xam ne yaa ngay wax te li ngay waxee gémmiñ la rek mën a leeral day yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla mi wax te waxeewut gémmiñ rek ko mën gannaaw doo yàlla nag xamal ne mënoo xam dayob yonent bi comme koo xam nag noo koy leerale nit lim xam yépp sax mënu koo wax waaw lim xamut nag sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama <clears throat> law naasabat qadrahu ayatuhu cidaman axya smuhu xiina yudcaa daarisa rimami law naasabat su haskanaanteewoon ayatuhu ay kaawteefam qadrahu darajaam cidaman ci màgg su fekkoon ne aayaay yonent bi sallallahu alayhi mën nañoo comparé oo darajaam axyaa kon dundal ismu turu yonent bi xiina yudaa saa yuñ ko hooyee daari rimami aji funax ji yàq bu fekkoon ne ay kéemaanam mandaxante nañu wala jéem nañoo wala mën nañoo xem ak darajaam konoon fu ñu ne diw jogal ci barke bi yonent bi rek diw fay jog waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam aayaam yi sax xëpp nañ loolu yàlla moom la soob mu am yenn yum nëbbu di ko xaare àllaaxira nga xam ne fa la ñuy gisee kanay dëgg-dëgg yonent bi ndem danañ ko peeg sax foofa sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallama ndax yàlla nee na ko wala laaxiratu xayrun laka min luula sidi ali wafa ni ko imaam bajuri bi indee nee na loolu kat firiwul ne àdduna ak àllaaxira li mu firi mooy laxda bu topp ci laxda ba weesu woon ci laxdaat yi rek mu yonent bi gën cee jege yàlla gën cee kawe gën cee waaw mat donte lépp luy mat ci wàllu mbindeef xam na ko ba pare waaye gannaaw yàlla moom sayru fii du jeex yonent bi toujours rek waaw yéeg ci yàlla subhaanahu wa taala wala laaxiratu xayru luula yàlla jox na ko ayaatu xaq min arrahmaani muy alquran muy ay aayaam loolu rekk kat moo mën a wane darajaam sallallahu alayhi wa waaye bu fekkoon ne aayaam yi jox nañ xaq yonent bi darajaam jox nañ xaqi darajaay yonent bi jox nañ daraja yonante bi xaqam konoon fu ñu tuddee Muhammad ci kanam néew rek néew ba jog waxuma la néew bu dee waaye néew bu funax ànd ak loolu yëpp nag lam yamtaxin na <clears throat> bi ma taayal uqulu bi xirsan alayna fa lam nartab wa lam nahimi lam yamtaxin na nattoohut ñu bi ma ci taklif goo xam ne taaya dana lottu al uqulu xeli bi ci moom Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu muy firi lii mu ne gis nga yàlla sax ba muy wax moo rañaane yonent bi waxut bi nabi yi ndax bi nabi yi boo jiitalee baagi rek muy bi bu na yi bu ko defee nit mën naa ñëw ne ndoomam si waaye bi abdi la wax ngir rek bañ ñoo fitnaal lam yam taxin naa na toowut ñu bi maa ci loo xam ne taayaa dana lott alu xoolu xeli bi ci moom xirsan ngir nga xir alay naa ci ñun de xarisun aleykum bil muminina raufun rahim moo tax ñu ndeefalam nar tab sikkuñu walam nay waaw gëlamuñu tamit lépp lu ñu waaw yonent bi indil rek leeralal nañu ko ba nga xam ne amut luñ ciy def defle lépp ala wajil yi la ñu ko indilee sallallahu alayhi wa sallam bu daan wax ak ñun sax fu daan indi al amthal al mahsusaat indi ay exemple ba nga xam ne dara waaw dootu nëbbooti lépp la ñuy xam nañ ko war a xamee ndax alquran ko wa nazzalna alayka alkitaba tibyaanan li kulli cheyin li tubayina linnaasi ma nuzila waaw ilayhim yonent alayhi wa donte lim ñu indil leer na ba waaw suñuy xel lottut ci dégg ko leer na ba tamit suñuy xol duñ ci fitna ba di ko bokkaaleeg yàlla moom ci boppam nag aayal waraa fahmu maanaaw fa laysa yuraa lil qurbi wal bu'du fiihi wal munfahimi moom yonent bi nag li aayaam yi ak shariaatoom di leer leer moom moom lënt na kenn mënu koo xam ndax kawee ma tax aayaa lottal na alwara mbindéef yépp fahmu maanaaw dégg maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa bi mbiram ak maanaam ak maqaamaam ak martabaam mi ko yàlla jagleel ak liko yàlla jox ci ay maarifu ilaahiya ak jikko gim jikkoo ci sifaat rabbaniya kenn ci ñi yàlla bind mënu ca xam dara ayaa lottal na alwara mi ndee faham maanaaw dégg maanaam yonent bi dëgg-dëgg yonent bi kenn xamu ko suñu maam alxaaji omar ibn ali ci daaru ndan nee na walaysa waaw allahuma salli ala muhammadin wa alihi wa sahbi wala waliyun wala qutbun wala malakun qad xassahu llahu bilxubbi wa munkatami nee na maqaama ahmadiyatoom wala xaqiqatul ahmadiyatu kenn amu ci accès laysa annabiyuuna wala arsaalu kulluhumu bi mudrikiina li sirri ahmad alaalami wala waliyun wala qutbun wala malakun qad xassahu llahu bilmaddi wa munkatimi ayal wara fahmu maanaaw falaysa yura déddi gis xayru munfahimi kudut aji wedem fii ci moom fil qurbi moo xam ci xaalatu jege la wal bu'di wala ci xaalatu sori yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko gënoon a jege mu yaay doomam ak saxaabaam ak ñoñam xamuñ ko bu dee sax gis nañ waahiram moom la Uways waxoon Seydina Ali ak Seydina Omar ne yéen xamuleen ci Muhammad yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu dul keram ga mooy lu ngeen ci xam yépp ci xaqiqatu muhammadiyatu la waaye xaqiqatul ahmadiyatu kenn amu ci accès rawatina nag ñun ñi nga xam ne gisuñu ko donte gëm nañ ko moo xam xutbu la moo xam kumu kumu kenn xamul yonent bi nag sallallahu alayhi wa mu leeral ne ka shamsi tadharu lil aynayni min buudin saghiratan wa tukillu tarfa min amami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam shamsi mel ni waaw jant ci bu soree ak bu jege tadharu dana feeñ lil ayni ni ñeel ñaari wët yu koy xool min buudin te fekk ñu ngi koy xoolee fu sori saxirata ndaa ji ndaw mu mel ni rek waaw ab seetu rek ngay séen te fekk suuf silee waaw matut dara ci waaw jant bi jant bi na ko ganaa ñaar fukki million ngi yoon wëttu killu te dana lottal tarfa bët min amami ci jege jant bi bu la jegee doo ko mën a xool bu la soree lim rëy rëy nga foog ne fa tuuti mooy doo ko mën a gis bu la doo ko mën a gis bu la jegee yonent bi noonu lum la jege-jege kenn mënu ko melal waaw nam waree da ngay wax rek ba ci kanam nga ne ah way njëkk way mujj mosuñoo gis ko rafetee ni moom duñ ko mos a gis waaye du tere rek ne duñ ko mën a xool ba mu jeex waaw ñi ko waaw gisut nag wala dunduñoog moom wala mosuñ xaqiqatoom waxi nopp nit yàlla ka mu ne xuur na xuus naa ci lëggëm xaqiqatul muhammadiya bam waaw des juróom ñaar fukki junne yi kii raay sama digganteeg moom yoo xam ne bu ma ci xuusoon rek mu lakk ma waxut sax xaqiqatul ahmadiyatu wa kayfa yudriku mu bëgg ñoo wan ne ñàkk xam yonent bi duut kéemaan xam ko kay moo waroon a nekk kéemaan mu ne wa kayfa yudriku kaawteef naka lay xamee maanaam istifaamu linkaar yi la naka lay mën a xamee xaqiqatoo dëgg dëgg yonantu bi fi duniyaa ci àdduna xaw mun ñoo xam ne niyaamun way nelaw lañ tasallaaw ba danañu misee anhu ci moom bi lu xulumi ci gént ñoo xam ne mënuñoo xam mënuñoo gis yonentu bi sallallahu alayhi wa mu ne nit ñoo xam ne ci xaalatu nelaw woy sàggan lañ woy xiiru lañu ba eh, gént gañ koy gént di ko gis rek moo leen di waaw yombalal moo leen di woyafal kiiraay ga ñooñu nuñ mën a xamee xaqiqatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte am na ñu koy gis ci lu nelaw it loolu it ci tasliya rek la waaye gisuñ dëgg-dëgg yonent bi de dëgg-dëgg yonent bi xalaxira rek lañ koy gisee xaw ma nag sax danañ am doole dëgg-dëgg xam ko tasallaw tasallawu la woon ñu soppi waaw gu njëkk gi alif ngir maskaam gi ak fataha gi nga xam ne li ko jiitu fataha na ko te ñu xadaf ko ngir dajeeg ñaari waaw sukkoon yi wa kayfa yudriku fi dunia xaqiqatahu qawmun niyaamun tasallaw anhu bil xulumi yow boo nelawee sax boo xeewoo fàtte li nga géntoon ananu kon noo mën a amee bi sallallahu alayhi wa fa mablagu l annahu basharun wa annahu xayru xalqillaahi kullimi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal soo ko taggee ba sonn lenn rek ngay wax noppalu mooy fa mablagul ilmi dayoob jot xam-xam fii ci yonentu annahu mooy basharun mbindeef la waxal ne mbindeef la rek ci mbindeefu yàlla yi wa annahu ak naka moom bu dee mbindeefit xayru xalqillaahi moo gën ci mbindeefu yàlla yi ku liim ñoom ñëpp laa wax nit ñaag malaaka yeeg jinne yeeg ñu ñoom docteur Zaki Mubarak ci téeréem ba almadaixu nabawiyatu wax na li nga xam ne ñi solo burda danañ koy nettali ci mbiru bayti bile ñu ne imaam Busiri ba muy sos xasida ji ba gis yonent bi sallallahu alayhi wa ci nelaw waaw di ko saddal xasida ji bi mu yegsee ci fa mablagul ilmi fiihi annahu basharun mënuta continuer yonent bi moo indi chatre bi ne waa annahu xayru xalqillaahi kullihimi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg kalaamam dana nekk muttasin waaye du duy nekk mawzuun ndax moom du bind du wëy waaye wax nag léeg-léeg mu tolloog wëy ni ki alquran da nga gis fa asbaxu laa tara illaa masakinahum chatre la ci baytu basit waaye taxut muy woy ndax aji wax ji jubluwut ko ci tey du mawzoon bu dee sax mu tasin la ñu ne Seydina Jibril Seydina Busiri waaw yeggali ko ba pare tofal ca waxam jëlee muy mawlaay salli wa sallim daiman abadan ala xabibika xayril xalqi kullihimi xam nga ne moo ëpp bayre ci ba ci burda te boobee burda doo ko ci gis ñu ne jamono bi nga xamee ne yonent bi feeñu na ko mu wax ne fa mablagul ilmi fihi annahu basharun yonent bi yeggalil ko wa annahu xayru xalqillaahi kullihim moom mu teg ca mawlaaya salli wa sallim daayiman abadan ala xabibika xayril xalqi kullihim xanaa moo ko jox daraja yooyu boog wa kullu aayin ata rusulu lkiraamu bihaa fa innama tasalat min nuurihi bihimi waaw wax na sax ne bachar ndax dafay bañ nga foog ne ngëneel gi nekk ci moom mënu koo nekk ba pare nekk mbindeef bu dul yàlla it xanaa malaaka la mu wan la ne la déedéet bachariyatum gim nekk rikkiwut afdaliyatum gi nekk malaaka taxut a gën nit ndax alquran misaal na ne nitu yusufa bañ ko gisee ak taaram ñu ne ma haada basharan kii du nit in haada illa malakun mooy kon nit ñi dañuy foog ne toujours ci seeni xel ñu ngi def def le ne malaaka moo gën a màgg nit moo tax léeg-léeg sax bu la tubaab di tàgg ne la yow t'es un waaw war you are an angel waaye nit dana gën yonoon dana gën malaaka ndax yonent yi ñoo gën malaaka yi lenn ci xutb yi sax ñoo gën yenn ci mala malaaka yu bari wa kullu aayin ata rusulul kiraamu biha fa innama tasalat min nuurihi bihimi mu ne wa kullu aayin aaya yépp wa kullu aayin bépp aaya ata boo xam ne dikka dikk na ruslu yonentu yi alkiraamu yooyu tedd biha ci moom bépp aaya boo xam ne ab yonentu dikkee na ko xamal ne fa innama tasalat aaya ja jokku na bihim ci ñoom mi nuuri yi tukkee ci leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yi kéemtaan guñ mos indi wala laaya juñ gës indi xam na rek ne ci xaqiqatul muhammadiya waaw la jógee rek waaw ñëw ci ñoom xam-xam bu yàlla di bëbbal ci jaam ñi ci yonent bi sallallahu alayhi wa la koy jaarale yàlla nee na yàllaay joxe waaye maay séddale kon bépp laaya moo xam aaya bu aju ci seenu risaalatu la wala bu aju ci seeni waaw meloo yi waaw yonentu yëpp rek mi ngi jógee ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mawlaaya salli wa sallim daa'iman abadan ala xabibika xayril xalqi kullihimi fa innahu naka yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama shamsu fadlin jantub ngëneel boo xam ne hum ñoom yonent yi kawaakib waa ñooy bidiwam yuzhir na ñuy leeral anwaaraha ay leeram ñuy feeñal anwaaraha ay leeram linnaasi ñeel nit ñi fi zulami waaw ci lëndëm yonent bi sallallahu alayhi wa boo bëggee xam ni mu gënee yeneen yi te firiwut ne seen daraja dafa tuuti waaye li muy firi mooy darajaam xëpp na seen daraja mooy yonent bi mooy jantub ngëneel yonent yi ci des ñooy biddiw ngëneel biddiw xamut leer leeram mi ngi ko jëlee ci leeru jant bi jant bi niñ koy waxee bu nekkee ci suuf te moo ëpp suuf dafay reflété leeram ci biddiw yi ñuy leeral nit ñi waaye bu génnaatee rekk ñoom dootuñ leerati yonent bi ci xaqiqatam ci xaqiqatoom la yonent yi jëlee seen nubuwatu moo tax bam ñoom ñëpp ñu nëbbatu maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul wa xaatima annabiin shariatum moo fooli sharia yëpp ak bi xalqi nabiyin zaanahu xuluqun bil xusni mustamilin bil bishri muttasimi akrim du fiilu amar joo xam ne fay digle waaye fiilu amar la joo xam ne maanaam taajub la xame akrim yéemal ak màgg bi xalqi nabiyin ci bindug yenentu boo xam ne zaanahu rafetal na ko xuluqun jikko akrim yéemal tedd bi xalqi nabiyin ci binduk yonentu boo xam ne mus mustamilin aji làmboola bil xusni ci taar ba muttasimin aji meloo bil bishri ci mbégte zaanoo yokk na ko taar xuluqun jikko maanaam bindëb yonentu bu rafet bii aka tedd num rafetee aka rafet aka taaru ba noppi jikko ju rafet ñëw yokku taar ba mooy nim mel ci biir rekk noonu la mel ci biti nim taaroo ci biti noonu la mel ci biir sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama booy seet taaram daal ka zahri fi tarafin wal badri fi sharafin wal bahri fi karamin wal dahri fi himami sallallahu alayhi wa sallam ka zahri mi ngi mel ni fleur fii tarafin ci nooy Seydina Anas nee na maa masastu xariiran wala dibagen alyana min kaffi nabii sallallahu alayhi wa sallam mosuma lambu waaw soy walla dibaaj bu nooy ba gën a nooy tënk yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam yenentu booy xool mu ngi mel ni fleur cig nooy wal badri mi ngi mel ni weer fi sharafin ci tedd li ñuy xool ci kaw jan bad weer wi bu tolloo ci badr moo ci gën a rafet gën caa euh, tedd moo tax mu niroole ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy weeru fukki fukkeeg ña fukka fan ak waaw ñeent waaye yonent bi sallallahu alayhi moo gën a nooy waaw fleur moo gën a tedd weeru badr waaye nag yooyu lañ xam ci yuñ mën a niroole moo tax ñu waaw jox ko ko waaye niroole ko yooyu sax taxu ñu jox ko xaqam sallallahu alayhi wal baxri mu ngi mel ni géej fii karamin ci tabe géej gis nga ni muy joxe anas ne mosu ñoo laaj yonent bi sallallahu alayhi wa dara lu dul joxe na ko waaye laaj na ko mu jox ko gàtt ak gëlëm gàtt go waaw gàdd ak gàtt goo xam ne waaw fees na diggante ñaari montagne maanaam xuur yi uh, fees dell ak gàtt ah, waaye laaj ko ko rek mu jox ko ko kooko dem ñibi ci aw nitam naan leen aslimu fa wallahi inna muhammadan la yuti ataa man laa yaxaabul faqra jébbalu leen ndax muhammad mooy ko xam ne dafay joxe joxe ku ragalu ak ñàkk wa dahri mi ngi mel ni jamono fii himami ci bëri yitte yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma la mel ni jamono ci bëri yitte waaye la ko woykatam ba woy ne ko lahoo himamun laa muntahan li kibaariha wa himmatuhu suxra ajallu min addahri yonent bi itéem ya ca gën a mat ya ca gën a mag kenn mënu ko nat waaye ba ca gën a ndaw moo gën a nat jamono moo gën a mat moo gën a moo ëpp jamono kon nag buñ koy niroole hitte ci jamono jamono lañ def defal faveur waaye du yonent bi sallallahu alayhi wa xanaa dañoo xamut lu ëpp hitte jamono moo tax ñu koy misaale e, jamono moo tax muawiya ba muy tudd ci himamu dahr mu ne man rafanaahu irtafa wa man wadanaahu tada tashbihaat yi yëpp dafa nekk ci aaday arab waaye joxul yenoon bi xaqam ndax yii mu tudd yëpp barke la ci barke yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallama ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin xiina talqaahu wa fi xashami ka dafa mel ni moom yonent bi wa huwa te jamono joojkat fardun moom kotta ànd min jalalatihi ngir màggaayam wi askarin dafa nekk ci armée xiina talqaahu jamono boo dajeeg moom fekk moom kottaxat ànd màggaay bay tax dafay mel ni mbooloo moo xam ne ci xare lañ jëm ay militaire ak seeni fasaki seeni jaasi dégg nga ak riir ma na mu rëyee boo dajeeg yonent bi sallallahu alayhi te moom kota àndkat sentiment boobu ngay am ndax ndax màggaayu yonent bi wa fi mu ngi nekk ci ay dagam ñoo xam ne bu meree ñu mer boo taseeg moom moom yonent bi te moom kota àndkat mi ngi mel ni rek ku ànd ak ay surgaam ak dagam ñoo xam ne bu meree ñoom ñéppay mer lu mu bëgg ñu def ko la ko ko may mu ne mooy màggaay bi kenn la woon waaye doo dajeek moom ba yëg ne kenn nga dajeel boo dajeek moom xëybatu eh, gi ngay am dafay mel ni mbooloo mu waaw mbooloom xare nga dajeel sallallahu alayhi wa sallam ka annama luluul maknuunu fi sadafin min maadinay mantiqin minhu wa mubtasami ka annama dafa mel ni wurus addurru almaknuunu wu ñoŋal fi sadafin ci muuraayam ni nga xamee ne wurus maadin la woo xam ne moo gën a waaw tedd la ko def mu ne yonent bi sallallahu wa alihi wa sahbihi wa boo xoolee waxam ak muuñam nga comparé ko yeneen wax yeeg yeneen muuñ mu ngi mel ni luuluwul mak noonu rek ak sa daf ba walla mu ngi mel ni luuluwul mak noonu ci biir sadafam ñeneen ñi mooy yeneen mbel yi ka annama luuluwul mak noonu fii sadafin min maadinay mantiqin ci ñaari mbell yaamum benn ba tudduga la wala tudduwaay la minu tukkee ci yonent bi wa mubtasami ak muuñuwaay minu bu tukkee ci yonent bi sallallahu alayhi mooy sàkkar yàlla ba ca waaw gémmiñ nga nekk ca bëñ ya ak rafetaayu bëñ ya ak bu waxee mu mel ni waaw niir yu weex yu rafet yooyu ak parfum bu neex boobu mooy génn ci waaw gémmiñam booy misaal nag rafetaayu tuddam ak rafetaayu muuñam mu ngi mel ni rek loolu ah, bu ñu waaw denc ci biir sadafam buñ ko génnee na muy rafetee noonu dàq leneen lu dul moom ci xeeti maadini noonu la waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak muuñam dàqee gën a neexee yeneen waxi alayhi salaatu wassalaam lillahi darruhu ma asharahu nee laa tiiba yaadilu تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتهم صلى الله عليه وسلم laa tiiba déet teey laa tiiba déet parfum yaadilu <clears throat> di tolloo turban suuf soo xam ne damma tàpp na laq na azumahu ay yaxi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam anas doon na wax ne maa chamamtu ambaran wala miskan wala cheyan atyaba min riixi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mosuma foon anbar gatt la wala misk gatt la wala dara dara dara dara dara lu gën a teey waaw xeetu yonentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam bi ni mu bëggee woon parfum terewut moo gën a <clears throat> teey parfum moo ko dàq xam nga parfum boo gisee yonentu bi sallallahu alayhi wa bëgg ko générosité ma tax ndax parfum ku ko bëgg rek xamal nit nga ko bëgg ni ñi nga bëggal jàmm ndax bi ko laalee balaa ñaari minute dootu la xeeñ yow waaye koo romb mu xeeñ ko kon nit ñi nga ko defal bu dee jigéen nag bëgguñ bu xet ga ëpp ndax fitna la ñuy bañ mu ne waxuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye suuf sa ko tàpp xamut benn parfum boo xam ne teey na ba mën a teey na neex na ba mën a jege odoru waaw suuf soosu tuubaa texe li mun tashiqin na waaw aji sorox ndiku fóon ak gémmiñ minhu ca waaw tukkee ca odeur boobu di génnee ca suuf soosu nga xam ne moo tàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa multahimi ak koo xam ne rek waaw dafa sëmbaral ko ca ca suuf sarek rek ki ko njëkk def mooy sayyidatuna fatimata radiallahu tabaraka wa taala anha bi nga xamee ne waaw suul nañ yonent bi bees mu dem <clears throat> waaw soroxndiku ca maanaam waaw fóon ko daal di rek jooy maada ala man chimma turbata ahmadin an laa yachumma mada zamani gawaliya jamu xaaliyatin subbat alayya masaibu law annaha subbat ala al ayaami udna layaaliya ndey mu ne képp ko xam ne foon nga suuf si nga xam ne moo tàpp yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam di laalati parfum rawatina ak bu dee sax parfum xaaliya la nga xam ne parfum buñ xam la bu bu bu ci neexaay mu ne nag musiba miñ ma sotti tey ngir deewu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam rëy na ba nga xam ne suñ ko sotti woon bëccëg yi li ñuy leer leer ñu mujj di guddi kon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamut sikk ne suuf sam ne moo dàq parfum luy téye ndax yonent bi wax na ne <coughs> ku dee rek waaw manazil manzila bi ngay njëkk wàcc ci manazilu alaxira manzil bi ngay njëkk wàcc ci këri alaxira yi mooy xabru benn muy rawdatun min riyadil jannati wala xabratun min xufari naari benn muy toolu dër ci toolu dër yi aljanna yi wala muy pax ci paxi jahannama yi yan ci yàlla boole musal te bu dee toolu dër ci toolu dër yi aljanna yi ana kuy comparé aljanna ak daraay àdduna te yeneen yonent bi waxoon na ne sama diggante xabru bi ak sama minbar bi toolu dër la ci toolu dëru aljanna yi te moo ko gën sax ndax xabru bi ak minbar bi yëpp dugg na ca waaye uh, min diggante minbar bi ak xabru bi la leen ca dugal mooy kaca xabru ba sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wax na ne sax wa minbari ala xawdi yi wala xawdu min aljannati sama minbar bi mi ci sama xawdu ba te sama xawdu ba ci aljanna la bokk kon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ci njëkk tey na ci mujj teey na ci biir teey na ci biti waxumala la na waaye lu teey ak ci moom nga teey yal na yàlla teel ci yonent bi sallallahu alayhi wa teel suñu mbir ci zahir ak ci baatin defaral ñu lépp luñ bëgg mu defaral ñu musal ñu ci lépp luñ bëgg mu musal ñu ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke guddi yu tedd yilee hada wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi tabaraka wa taala wa barakatuh alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now you can listen to our Fakir Muhammad Saha Tijani along with the greatest scholars of our time on Tijani International Radio every day at www.icfaonline.com, at www.muhammadsaha.com, by dialing your phone at 401 347 07 841. Or by downloading the Tijani Radio application onto your smartphone or computer. For your questions about Islam, you may call 347 596 2036 or email us at icfaonline at gmail.com. Spread the word by sharing this message with your friends. Wassalam. Wassalam.